nous n'attendons plus que la lecture de la liste du gouvernement. Et on vient de nous signaler tout à l'heure qu'il y aura deux lectures. La première, euh, ce sera pour euh, le cabinet du président, pour annoncer le cabinet du président de la République. Et la seconde lecture, ce sera pour faire part euh, du nouveau gouvernement qui a été constitué. Et toutes ces deux lectures par le secrétaire général euh, de la présidence de la mmh. République. Pour le moment, nous attendons nous aurons l'information. Très bien. Alors, euh, Daouda Sow, nous vous gardons en repérage. En revanche, je vais juste vous demander si vous avez euh, euh, remarqué la, la présence euh, de, de, têtes connues ou pas euh, dans l'après-midi. Non, pas du tout. Pas à la présidence de la République. Il n'y a que le Premier ministre Mimi Touré qui vient d'arriver tout à l'heure. Mais à part ça, il n'y a pas de tête euh, qu'on reconnaît ici sur place. Autrement dit, on peut retenir que les consultations ont pris fin alors cet après-midi. Oui, les consultations ont pris fin et d'une minute à l'autre, nous aurons la liste. Nous sommes déjà installés et nous attendons la lecture de cette liste. Daouda Sow, euh, à tout priorité au Et je reçois Mansour Ndiaye, euh, qui est ancien conseiller technique à la primature. Euh, c'est à l'époque de Souleymane Ndiaye. Il est également membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Et puis à ma gauche, Abdoumbo, député à l'Assemblée nationale et de euh, qui viennent de prendre fin. Et puis, dans quelques instants, <coughs> l'annonce euh, de la liste de cette nouvelle équipe euh, gouvernementale du Sénégal. Je vous rappelle qu'Abdoulmaï a été donc démis de ses fonctions euh, dimanche et puis remplacé par l'ancienne garde des Sceaux, Aminata Touré, qui va annoncer la composition de sa toute nouvelle équipe. Messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour Khalifa. Alors la toute question, euh, je vais l'adresser à, à, à l'honorable député Abdoumbo. Euh, tout d'abord, nous allons revenir sur l'actualité de, de, dimanche. Comment est-ce que vous avez acquis la décision de Macky Sall euh, Je salue les téléspectatrices et téléspectateurs de TFM qui suivent au Sénégal et à travers le monde. Je vous remercie de nous avoir invités ici sur votre plateau, mais je salue aussi mon frère Mansour qui est avec nous sur ce plateau. Comme vous l'avez dit, nous avons accueilli la nouvelle comme tous les Sénégalais. Euh, que M. le Premier ministre a été démis de ses fonctions, comme vous l'avez dit, par monsieur le Président de la République. Et nous l'avons accueilli de manière euh, très simple, c'est-à-dire nous sommes dans une République mhm. et la marche normale d'une République est que le Président de la République à qui la Constitution confère les pouvoirs de nommer aux fonctions civiles et militaires qui avait pris monsieur le Premier ministre Abdoul Mbaye quand il a été nommé euh, élu au suffrage universel pour faire de lui son Premier ministre le 2 avril a jugé nécessaire mm -hmm. de mettre fin aux fonctions de ce dernier pour en nommer un autre qui va Juste un mot de, de avant d'entrer dans les détails. à votre niveau, comment est-ce que vous l'avez acquis cette nouvelle Vous y attendez un peu ou pas du tout merci beaucoup Khalifa de m'avoir invité sur ce plateau d'édition spéciale pour parler de l'actualité. Je salue mon co euh, le frère Abdoumbaou. Euh, nous, au niveau du Parti démocratique sénégalais, euh, il faut dire que cette décision qui consiste à limoger Abdoul ne nous a pas surpris. C'était prévisible, donc euh, c'est le contraire qui aurait été surprenant euh, parce que nous, souvenez-vous, de décembre 2012, on avait introduit une motion de censure pour demander à ce que le Premier ministre Abdoulaye soit démis de ses fonctions euh, par rapport à l'affaire Abré, parce qu'on voulait éviter au peuple sénégalais le spectacle désolant d'un Premier ministre qui s'affiche comme ça à la barre pour un procès Euh, de, de contre l'humanité ou de, de recel, de détournement de, de deniers Parce que tout le monde sait qu'il était mêlé dans le recyclage de l'argent qu'Abré a amené ici. Euh, donc, en surveillant aussi l'actualité, le Premier ministre et le président Macky Sall ont échangé par personne, par presse interposée. Mmh. Euh, quand Macky Sall dit que si toutefois euh, Abdoul est mêlé donc, dans cette affaire de Dissène Abré, je prendrai mes responsabilités. Mhm. Euh, et que Abdoul Mbaye dans l'émission euh, qu'il a fait ici au niveau de TFM disait que de toute façon si cela se produisait donc il était le premier à rédiger donc une lettre de démission avant qu'il ne soit démis de ses fonctions. Oui. Déjà, donc, on notait l'atmosphère donc, délétère qui existait entre ces deux autorités. Très bien. Alors, nous, nous, allons entrer, nous allons essayer de disséquer ce point précis, le départ d'Abdoul Seul Macky Sall connaît les raisons objectives de cette décision. En revanche, les observateurs parlent, certains parlent de, de frustration, euh, donc d'une réponse à une demande de la coalition, et d'autres de l'affaire Abré. Nous y arriverons. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez réellement Voilà, moi, ce que j'en pense euh, réellement, c'est qu'il faudrait que les Sénégalais, euh, les hommes politiques sénégalais arrêtent de faire de la météo politique. La météo politique, c'est quoi C'est que dans une république, c'est normal qu'un président de la République nomme un Premier ministre, c'est normal qu'il mette fin à, aux fonctions de ce dernier. Moi, je pense que ça, c'est normal. Il faut se rappeler qu'en 2000, après 6 mois ou 9 mois, je, euh, si, si, si je ne m'appuie, le président Wade s'est séparé de son premier ministre. Après, il s'est séparé du deuxième, troisième jusqu'au quatrième premier ministre. Avec, à chaque fois. Donc, je pense qu'on n'a pas connu cela cette fois-ci. Cette fois-ci, on a connu vraiment un premier ministre qui a été nommé par un président de la République et 18 mois après, le démettre de ses fonctions. Moi, on, a Mais, je euh, dis, je, reviens, à ça. Une dénonciation le président Macky Sall n'est pas quelqu'un qui fonctionne le chantage. Le président Macky Sall ne cède pas devant le chantage. Mmh. Tu sais, la coalition, comme vous avez dit, vous avez entendu la coalition dire qu'il réclame 25%, qu'il dit... Cela n'a eu par rapport aux décisions du président de la République par rapport aussi à l'affaire Abré aujourd'hui tout à l'heure euh, tout à l'heure monsieur Ndiaye a dit mm -hmm. que le PDS avait déposé une motion de censure ils avaient demandé que euh, monsieur Abdoul Mbaye soit démis de ses fonctions mais mm -hmm. je mhm. pense que c'est pas au PDS oui. de dire au président de la République de démettre son premier ministre la preuve quand ils ont fait leur motion de censure je pense que ce que le Premier ministre leur a dit mmh. était clair ce que les députés de la majorité leur ont dit ça a été clair et la motion de censure a été rejetée mmh. il a dit aussi que ils ont euh, échangé par presse interposée entre le Premier ministre et le président de la République c'est pas vrai parce que c'est vrai que le président de la République à un moment donné il avait dit que affaire Habré mais quand même l'affaire Habré n'a absolument rien à voir par rapport au départ de Abdoul Mbaye mmh. le président de la République c'est lui qui a la prérogative de nommer il a jugé nécessaire mmh. d'enlever le Premier ministre et d'en nommer un autre. Hmm. C'est la République. Nous, sommes des républicains et le président de la République aujourd'hui a mis Madame Aminata Touré comme Premier ministre qui est en train de consulter des gens pour mmh. former un nouveau gouvernement afin que sa politique puisse être continuée. Parce que le Premier ministre oui. sortant n'a pas démérité. Hmm. Nous le félicitons parce qu'il a eu à un travail extraordinaire pendant 18 aujourd'hui le président de la République a jugé nécessaire de changer d'équipe pour mm. pouvoir continuer son mm. travail je pense qu'il n'y a rien d'alarmant il faudrait euh, juger les choses comme telles mm-hmm. et que les choses sont en train de se passer comme ça il n'y a pas eu euh, une annonce, des, des effets d'annonce parce que quand même à l'époque oui. on nous avait habitués tout le temps mm-hmm. avant de nommer même un gouvernement ou un premier ministre mm. six mois avant ou cinq mois après ou bien euh, des semaines après mmh. que l'information alors, soit dans la rue. Ceci n'a pas été le cas et oui. je pense qu'il faut s'en féliciter. Très bien, alors nous nous acheminons euh, vers les élections euh, locales et d'aucuns estiment que c'est une décision également euh, politique qui prépare ces échéances. Qu'est-ce que vous en pensez vous, Khalifa, vous, avant vous de répondre par rapport à cette question des élections locales, oui. euh, je voudrais tout simplement préciser, parce que mon co-débatteur donc, oui. mon co-débatteur, donc évoque euh, que nous faisons dans la météo politique. Oui. Peut-être qu'il ne comprend pas ce que c'est que la météo politique. Mm. Je le comprends, il a une formation journaliste. Parce que faire dans la météorologie, c'est la prévision. Mm. Nous ne faisons pas dans des prévisions. Nous parlons de faits, nous sommes factuels. Euh, Abdoul Mbaye, euh, la motion de censure Ab Ab Ab déposée... Et, et après, il euh, n'y a rien de, de factuel. Non, non, non mais c'est des faits. Abdoul Mbaye a reconnu avoir donc Euh, accueilli mais je, euh, je, le client je, je vais juste, après pour recycler l'argent. Je vais juste citer, pour être clair, je vais juste citer l'avocat d'Abré même qui a, qui a souligné, qui a bien souligné que son client n'est pas poursuivi pour détournement de fonds. Euh, donc il est, il est, poursuivi pour crime de guerre, crime contre l'humanité. Mais nous avons donc, euh, aussi euh, écouté, nous avons aussi banquier... écouté le ministre... Il a disculpé en quelque, Khalifa, en quelque sorte. nous avons aussi écouté le ministre garde des Sceaux tchadien qui dit qu'ils réfléchissent sur oui. une probabilité mmh. que l'État tchadien se constitue partie civile Alors pour une, restitution totale des bien. Notre conviction, au niveau du Parti démocratique sénégalais, oui. que le procès à Bray ne, ne, puisse se tenir sans que le Premier ministre euh, puisse comparaître. Mhm. Maintenant, euh, le fait qu'ils qu disent que euh, ce sont les prérogatives du président Macky Sall de nommer ou de dégommer le Premier ministre quand il veut. Mm. Euh, ils ne peuvent pas faire passer l'idée selon laquelle euh, a très bien travaillé. Non, Khalifa, on ne change pas une équipe qui gagne. Abdoul Mbaye et son équipe ont lamentablement échoué, c'est ça la réalité. En quoi Mais sur toute la ligne, Khalifa. Euh, aujourd'hui, euh, la réalité économique, nous la connaissons dans ce pays. L'expression d'Afamaki qui gêne tellement la mouvance présidentielle et le président mm. est réalité. Le à l'arrêt, rien c'est par une manque de vision du chef de l'État dans la définition de sa mmh. politique mm. que les choses ne bougent pas. Donc c'est pas un problème de Premier ministre. Ma conviction est que le départ d'Abdoul Mbaye ne réglera pas ce problème. Nous avons un président qui n'a pas de vision. C'est ça la réalité. Alors, voilà, qu'est-ce que vous répondez à cela Moi, juste heureusement, Khalifa, que vous avez euh, rectifié euh, M. Ndiaye en disant que entre Abré et Abdoumba, il n'y a rien de factuel. Parce que quand même, ah, s'il vous plaît, Mansour, je vous ai laissé parler, il faut écouter au moins. Donc, quand aujourd'hui, Abré est poursuivi, c'est pas ouais. pour faire d'argent ou autre. C'est crime contre l'humanité. J'ai cité son avocat, Maître Elas. Voilà, son ouais. avocat, oui, et, et, et, il a raison. Il est poursuivi pour ça, pas pour des affaires d'argent. Ouais. Donc aujourd'hui, entre Abré et Abdoulaye, rien ne lit cela par rapport à son départ. Moi, je pense que ça, encore une fois de plus, mm. comme quand je disais, de la météo politique effectivement c'est des prévisions c'est des prévisions alors l'échec maintenant qu'est-ce que donc euh, day wax ne boroom gémmiñ guy nàcc du wax jàmm que aujourd'hui le parti démocratique sénégalais dise que euh, Sall ou autres ont échoué pense ça ne nous surprend guère mm. que quand même pendant 12 ans ils ont géré ce pays là et aujourd'hui en le mars ils ont été défaits c'est normal aujourd'hui de ruminer leur colère on les comprend mais quand il faut dire que depuis que le président Macky Sall a été élu on a vu des avancées significatives il a dit tout à l'heure que l'expression euh, dëkk bi dafa Macky nous gêne non nous sommes extrêmement mm. joyeux par rapport à ça parce que quand on a un pays où euh, où le président de la République et Macky Sall ñuy wax dëkk bi dafa Macky mais on est très content par rapport à ça ah, heureusement qu'on n'a mm. dit que mm. dëkk bi dafa Ablaye Wade mais a je pense que c'est important et pour dire aujourd'hui Khalifa il faut le dire et le reconnaître nous nous sommes en train de gouverner ce pays en disant la vérité aux Sénégalais secteur par secteur c'est vrai que tout n'est pas rose même sur le plan des inondations ils sont en train de parler ces temps mais quand même on a vu qu'il y a eu c'est vrai des dégâts mais quand même depuis cinq ans le langage de, de vérité qui, non, a, qui a perdu le PM ah, non pas le PM mais je dis que le PM je dis pas qu'il a échoué non il a fait du bon travail parce que son gouvernement par rapport aux on est en train depuis que le président de la République a été élu dire la vérité au Sénégal parce qu'on est venu pour dire que qu'on ne change pas une équipe qui gagne mais vous savez ça c'est leur euh, c'est bien connu aussi oui, également c'est bien connu mais oui. on change pas une équipe gagne ça c'est un langage sportif mais oui. on peut changer aussi une équipe qui gagne pour qu'il gagne mieux moi je pense que ça aussi il faut ménage. le dire mmh. maintenant par, par rapport à, aux inondations j'en reviens mais depuis cinq ans on n'a pas vu par exemple une maîtrise de l'eau cette année cette, ah, cette année il y a deux ans à cette, cette année, on déclarait le plan Orsec. Il y a un an, on déclenchait le plan Orsec parce qu'on ne maîtrisait pas l'eau. Hmm. Parce que nous, quand on est arrivé, on y a eu des pluies, on a vu, parce qu'il n'y avait absolument rien qui a été sur le plan des ouvrages. Hmm. Sur le plan de l'éducation, on peut en parler, bien qu'il y a des difficultés toujours, mmh. mais on a vu aussi des avancées par rapport à cela. Hmm. Sur le plan de l'agriculture, les agriculteurs cette année, pendant la campagne, ils ont acheté l'arachide euh, avec un prix qu'ils n'ont pas fait depuis cinq ans. Mm. Et j'en passe par rapport à d'autres secteurs, point par point, on peut énumérer pour montrer exactement les réalisations du président de la République mm. par rapport à beaucoup de alors, secteurs. Alors Mansour, je vous laisse euh, juste euh, répondre en une minute de, de cet héritage difficile à gérer que vous avez légué à, à, à l'actuel régime, selon euh, lui. Euh, les, les, Sénégalais jugeront des propos de Abdou Mbow si nous avons laissé un héritage tel qu'il le décrit. Euh, je ne pas. Euh, conviction est que nous, nous avons laissé euh, un pays qui était sur les rails. Euh, Idrissa Seck l'a déclaré que les caisses de l'État, il y avait 417 milliards. Parti démocratique sénégalais qui a fait cette déclaration. de Abdoul est une réalité Khalifa. Quand il dit que nous, nous disons la vérité aux Sénégalais, est-ce que dire la vérité aux Sénégalais, Abdoul à ces jeunes à venir déposer au niveau de la fonction publique plus de 120 000 demandes pour recruter 5 000 jeunes alors qu'au finish vous ne recrutez même pas parce que en réalité euh, j'entends toujours euh, Tafsir dire que c'est l'arnaque du ciel parce que ces 5 000 jeunes ont été déjà recrutés par le Parti démocratique sénégalais et le régime de Abdoulaye Wade parce que ce sont des jeunes qui étaient à l'ENA ce sont des jeunes qui étaient au niveau de la douane c'était des jeunes Donc vous ne dites pas la réalité aux Sénégalais. Vous avez Le prix de l'arachide que vous avez fixé à 190 000 francs, 190 francs, les agriculteurs ont vendu mieux, jusqu'à 250, 300. Vous savez pourquoi? C'est parce que le système est libéralisé. Les Chinois ont besoin de l'arachide. C'est pas vous, c'est pas les huiliers qui ont acheté cette, cette arachide. Vous parlez de économique à recharger l'arachide qu'il avait amené, les semences, parce que les paysans n'ont pas les moyens d'acheter ces semences, parce que ces semences sont trop chères. L'engrais est cher. L'engrais pour l'arachide coûte 6 000 et quelques. L'engrais pour le maïs coûte 9 000 et quelques. Si vous voulez aider les Sénégalais, vous avez dit que vous allez assainir les finances. Vous traquez des biens, utilisez l'argent du pays qu -ce, qu -ce, à subventionner ces euh, prix. Qu'est-ce que vous faites, Qu'est-ce que vous faites, pour... qu que vous faites de, des 5 milliards euh, du plan triennal verser les 5, les 5 milliards pour soutenir justement euh, la, la, la, semence, pour booster la production. Qu'est-ce que vous en faites C'est quand même une bonne volonté affichée, non Non, mais Khalifa, ce n'est pas une bonne volonté. Bon. Vous savez, ces gens-là, ils manquent d'ambition. Très bien. C'est manquer d'ambition que de faire un plan décennal pour 700 milliards. Khalifa, si c'était nous, le plan TACAL ici, pour 500 milliards, nous l'avons mobilisé en moins de 3 mois. Le 700 plan milliards. Jamais taquin, et, eh, et, eh, comme on dit Khalifa, laissez-moi terminer, ouais, Khalifa. Pour 10 ans, mm -hmm ils ont élaboré un plan pour 700 milliards. Mobiliser milliards en 10 ans, c'est manquer d'ambition. Ces gens qui sont au niveau de la banlieue et ouais. à l'intérieur du Sénégal, mmh. qui patauchent dans l'eau, ne peuvent pas continuer à souffrir pendant 10 ans. Et s'ils ne font pas attention, ces gens vont descendre dans la rue. Khalifa, les inondations, ce que nous avons fait, ce régime-là ne peut pas réinventer on la roue. On ne fera pas d'appel au soulèvement sur ce Ils plateau. Ils ne peuvent pas hein, réinventer la bon, roue. Nous, nous, allons laisser euh, Mbow, le député savez, Abdoul Mbow, savez, réagir. Savez, mais très rapidement, nous allons passer euh, au, au prochain chapitre de vous, cette émission. Vous savez, moi je comprends vraiment Mansour. Il est peut-être venu pour faire son show. Moi je pense que ce n'est pas le lieu. Aujourd'hui, il parle de, voyez, les euh, paysans au niveau de Guinguinéo, là où il habite. Mais là où il habite à Guinguinéo, lui, avec son premier ministre, ils ont été battus à plate couture. Par qui Et eh, s'il vous plaît, ils ont été battus à plate couture pendant les élections législatives. Lui, vous et son premier ministre d'alors, mmh. ils ont été battus à plate couture et pourtant il y a les paysans là-bas. Donc les paysans disent Khalifa Non, on dit non. Il ne maîtrise pas ce ce qu'il dit. Laissez-le terminer, je vous en prie. Mansour, quand on est courtois, on laisse les gens parler quand ils ont la parole. moi je ne vous coupe jamais. Allez-y. Maintenant, pour dire par exemple, il parle aussi de plan Takkal. Mm. Le plan Takkal n'a jamais été takal comme un musul tak. Mm. Parce qu'aujourd'hui, depuis qu'on a pris l'énergie, il n'y a plus de plan Takkal et vous avez vu que l'énergie est maîtrisée. Bien qu'il y a toujours des coupures, mais pas comme avant. Mm. Et ils ont mis énormément d'argent par rapport à ça. Oui. Ils ont dilapidé les fonds de ce pays-là pour dire qu'ils font ça dans le plan Takkal. Ils ont fait des ponctions dans beaucoup de directions aujourd'hui qui euh, sont en train même d'aller vers la faillite à cause de ce plan Takala et ils n'ont jamais maîtrisé cette affaire-là. Maintenant, par rapport à tout ce qu'on a dit ici, je vous l'ai Khalifa, le prix de la, euh, de l'arachide, ils ont dit, il a que les paysans ont vendu mieux. Mais alhamdulillah, quand on fixe 190, ils ne l'avaient pas, les paysans vendent mieux, que les euh, Chinois achètent. Au moins, les paysans ont reçu l'argent qu'ils ont vendu de leur arachide. Mais eux, ils donnaient des bons impayés. Bon. Et l'histoire des bons impayés, on le sait ici. Alors, Donc je, moi je, je pense que, que sur ce plateau, l'ambition ou pas, Abdou on Mbaw, est très bien placé pour en parler. Le député Abdoul Mbaw mmh. de l'APR, également Mansour Ndiaye, euh, ancien conseiller technique à la primature et membre du comité directeur du Parti euh, démocratique euh, sénégalais. L'actualité, les consultations qui ont pris fin cet après-midi, euh, le, nouveau, le nouveau Premier ministre a la, les, les, a entamés depuis hier jusqu'à tard dans la soirée. Euh, dans un peu moins d'une heure sans doute, nous aurons la liste de l'ensemble l'ensemble de l'équipe de Aminata Touré. Alors, Aminata Touré, ancienne garde des Sceaux, désormais Premier ministre, comment vous l'accueillez Aminata Touré, Premier ministre, rien de nouveau sous le soleil Khalifa. Euh, notre conviction est qu'au parti de l'Alliance pour la République, ils ont un réel problème de ressources humaines. Tout le monde s'accordait euh, après le départ de que c'est Mimi qui allait donc promu. Euh, mais nous, si nous nous référons à son passage au niveau du ministère de la Justice, mmh. nous n'attendons pas d'elle grande chose. Mmh. Parce que Mimi, au niveau de la, qui, du ministère de la Justice, c'est des bourdes, c'est des bêtises, c'est de la cacophonie, c'est du tâtonnement, c'est une justice qui obéit à une logique politicienne. Donc, égard à, à, à cela, nous n'attendons pas de Mimi qu'elle fasse quelque chose au niveau de la primature. Mais, mais en, quoi, en, quoi, Nous, en, quoi, en quoi ah, En quoi, Je vais ouais. être clair. Mmh. Khalifa, c'est sous le... Euh, sous le magistère de Mimi au niveau du ministère de la Justice que l'État euh, a demandé, l'exécutif a demandé oui. au procureur de faire un non-lieu pour Barthélémy Diaz. Nous avons tous écouté ici et assisté eh au départ euh, du procureur Ousmane Diagne. Eh bien, eh quelqu'un qui déclare publiquement avoir tiré et qu que, qu que et qu'on en... amène à l'Assemblée nationale. Oui. C'est une justice donc manipulée qui obéit aux ordres de l'exécutif. Autre chose, nous avons tous ici assisté à Mimi Touré qui qui donne un chèque au ministre de l'économie et des finances ça existe dans quel pays oui. un milliard ses collaborateurs étaient tellement frustrés et gênés et elle elle persistait dans l'erreur vous savez l'erreur est humaine mais la persistance devient diabolique donc avec Mimi euh, je pense que elle son, son son son choix est très clair à la place du travail elle préfère traquer à la primature, elle continuera à traquer, non, ce, pas des biens supposés mal acquis, mais des biens imaginaires, traquer les dignitaires de l'ancien régime. Mais de toute façon, nous, nous allons faire face. Le Parti démocratique sénégalais va résister. Euh, notre conviction est que ce régime-là ne peut pas aller ils sont incompétents, ils ne peuvent pas régler les préoccupations des Sénégalais et nous allons nous dresser face à eux euh, obligés à rendre le tablier. Donc vous êtes en train de dire que Mme Aminata Touré n'a pas les compétences requises pour, euh, diriger euh, le gouvernement Khalifa, avoir les connaissances et la réalité du terrain, l'exercice du pouvoir, c'est différent. Je ne doute pas de ses compétences. Mais vous savez, être chef de gouvernement, c'est coordonner l'action gouvernementale. Pourquoi vous ne lui laissez pas le bénéfice du doute C'est être Khalifa, c'est capable de fouetter d'accélérer la cadence, de donner un rythme. Mmh. Mimi a eu des problèmes avec le syndicat de, de, la, de, de la justice, Sudjust. Nous l'avons vu que cet épisode, donc qui a paralysé tout le système judiciaire, empêché à des gens d'avoir des papiers euh, au niveau de la justice. Très bien. Celle, celle, celle là, Mimi, ouais. qui ne peut pas gérer le syndicat de la euh, justice, est-ce qu'elle peut gérer la primature où le poste est éminemment politique où elle doit être au contact des organisations sociales, elle doit être au contact des, des, des populations, nous allons elle doit être au contact Maou, des euh, politiques. Nous allons laisser Abdoul Mbaou donner euh, son de nous vue. Nous avez un coup de chiffon à mettre sur ce tableau qu'il vient de dresser. Oui, mais vous savez, euh, le Parti démocratique sénégalais ne s'est pas encore départi des travers qui l'ont perdu à travers mépriser les gens. Il a dit tout à l'heure au début de son propos, mm -hmm. le l'APR a moi je pense qu'il faut arrêter de mépriser les gens ouais. il faut faire confiance aux gens par exemple dire que voilà moi je peux faire ceci mais laisser les autres faire leurs preuves pour après les juger maintenant pour rectifier un peu mon frère Mansour Ndiaye qui dit que voilà euh, le procureur a fait une demande de non-lieu c'est pas vrai vous, vous êtes journaliste le procureur a demandé même qu'on l'amène aux assises mm -hmm. donc ça s'il vous plaît non, non j'ai pas dit ça non non il me prête des propos Khalifa il me prête des propos Oui, non, les, motion, les, il me prête Qu'est-ce que Qu'est-ce que C'est pas, le procureur qui a demandé un non-lieu. J'ai dit l'exécutif, mhm. l'État. Vous êtes en train de dire que la, justice a demandé. La justice a La le ministre de la justice a demandé à Ousmane Diagne mhm. de faire un non-lieu pour Barthélémy Diaz. Ce que ce dernier a refusé. et il a été démis de de la service Ousmane Diagne a été très clair non, non, il a dit qu'il il a dit qu'il a reçu des injonctions des ministres il a même cité Moustapha Souran comme exemple. de ministre. Khalifa, Il, avait même cité Moustapha Souran comme exemple de ministre. Par là, il faut comprendre que Mimi avait donné vraiment des... C'est beaucoup plus clair, euh, Abdoul Non, mais c'est très pas. mais pour dire que mm. euh, pour rectifier encore Mansour c'est pas un procureur de faire un non-lieu un procureur il fait un réquisitoire mm. encore une fois de plus ça pour le rectifier je suis pas un juriste mais quand même je comprends exactement ce que ça se fait lui c'est un bon cadre peut-être lui il comprend pas ça mais pour revenir un peu par rapport à ce qu'on ce qu'il dit tout à l'heure par rapport à Mimi Touré mm. vous savez tout ce qu'il a dit c'est de l'acharnement sur une personne C'est ce que je disais tout à l'heure. aussi de tout ce qu'il a dit. Mais de l'acharnement, j'en viens. Mm. L'acharnement sur une personne. Le chèque, c'est un fait. aujourd'hui, non mais attends, je dis le chèque, mm. ça a été, c'est très normal ce qu'il a fait. Ah Et je pense qu'ils sont en train, en tout le temps, le Parti démocratique, parler de chèque, de chèque, de chèque, parce qu'ils mm. n'ont pas d'argument par rapport à Mimi Touré. Vous savez la nomination de Mimi Touré. Vous êtes d'accord que c'est c'est un signal fort ouais. par rapport à l'option du président de la République par rapport à la bonne gouvernance parce que quand il a été au niveau du ministère de la Justice il est il a il a il a bien managé le dossier de ce qu'on appelle la traque dit des mal acquis des, des biens mal acquis ouais. et aujourd'hui on a vu nous tous mhm. que aujourd'hui ceux qui ont géré sont en train de la rendre compte et dans une république quand on gère les deniers publics on ne doit pas refuser de rendre compte Et quand on voit que toi, tu as été mêlé à tel ou tel scandale, il faudrait que tu le justifies devant la justice sénégalaise ce qui a été fait. Quand on parle d'indépendance de la justice, la justice n'a jamais été indépendante sous Macky Sall. Ça, il faut le dire et le Quand il parle de Sudjust avec les grèves et autres, les plus graves grèves du Sudjust ont été vues dans le magistère de Cheikh Tidiane Sy, qui a été décrié par le SYTJUST, par tous les travailleurs de la justice. Maintenant, par rapport à la, aux compétences de Mimi Haute, moi je pense que ce qu'il faut faire, mmh. c'est attendre les résultats que le gouvernement va produire. Et nous, en tout cas, nous sommes confiants quant à l'issue de ce gouvernement-là oui. conduit par Mimi Touré, parce qu'on sait que c'est une femme de qualité, une femme de valeur, une femme de caractère et qui est capable de conduire un gouvernement pour décliner la politique euh, pour euh, tout faire hmm. pour que la politique déclinée par son excellence monsieur le président de la République que ce gouvernement puisse se faire pour arriver à des résultats probants pour les Sénégalais Alors, et les euh, Sénégalais. priorité au direct d'une minute à l'autre nous ah, du palais de la présidence de la République pour justement nous livrer la composition de L'équipe de Aminata euh, Touré qui a euh, terminé ses consultations cet après-midi, des consultations démarrées depuis hier et qui se sont poursuivies jusque tard dans la soirée. Et sur ce plateau, nous avons Mansour du Parti démocratique sénégalais du comité directeur, également euh, Abdou Mbow qui est député et membre de l'Alliance pour la République. Alors, l'autre point avant de passer à l'autre chapitre concerne la décision et ses facettes. Euh, en perspective des, des élections locales, Mansour Ndiaye, vous n'avez pas répondu à cette question. Je n'ai pas répondu à cette question, Khalifa. Euh, mais je vais faire un petit recadrage. Hein. J'insiste sur mes propos. Abdoumbo, Abdoumbo a parlé de réquisitoire. Tout le monde sait, dans l'ordonnancement juridique, que le procureur, c'est l'autorité poursuivante. L'opportunité des poursuites ou non revient au procureur. Oui. Dire que nous allons continuer à poursuivre Barthélémy ou non, il a un non-lieu, ça appartient Et j'insiste, Abdou. On est d'accord. Allez, on, est, voilà. on Donc, un Premier ministre politique pour ouais. préparer les élections locales, euh, de toute façon, un Premier ministre politique, un Premier ministre Sall et son équipe vont être battus pendant les locales. Suivez-moi. Euh, après l'élection présidentielle, Khalifa, euh, quelques mois d'exercice du pouvoir, mmh. nous avons tous vécu le taux faible de participation lors des élections législatives. C'était un désaveu. Et nous l'avons dénoncé à l'époque. C'était un désaveu. Euh, quelques mois d'exercice, Abdoul Baye a parlé donc de besoin de réménagement par souci d'efficacité et d'efficience. Donc pour dire que rien ne marchait. Aujourd'hui, après 18 mois, rien ne marche. C'est ça la réalité. Et les Sénégalais, donc, euh, lors de ces locales, donc, vont, sonner le, le, gala. Ce sera un déclic pour montrer à ce régime que le pouvoir souverain appartient au peuple. Mmh. Notre conviction est que Mimi Touré, politique ou pas, ne peut pas donc changer la donne. Les mhm. élections locales, le Parti démocratique sénégalais les gagnera. Alors, l'opportunité euh, d'un Premier ministre politique Mais vous savez, moi, euh, encore une fois de plus, je ne fais jamais de distinguo entre un Premier ministre politique parce que pour moi, c'est difficile, et très difficile, de séparer politique et économie. Parce que ce sont les hommes politiques qui conçoivent des programmes, qui vont en campagne et qui vont devant les Sénégalais pour obtenir leur suffrage. Mmh. Et ces hommes politiques-là, c'est des cadres chevronnés qui ont euh, servi dans les plus hautes administrations. Mmh. Donc je pense qu'un premier politique ou ce qui est important, c'est d'avoir un gouvernement qui répond aux aspirations des populations. Monsieur Ndiaye a dit tout à l'heure que ils ont après il y a eu un faible taux de participation pour les législatives. Et pourtant, pour ce faible taux, eux, ils ont eu 12 députés. le parti qui était au pouvoir ils ont eu douze députés donc où sont leur militants eux donc moi je pense que il faudrait euh, il faut il faudrait pas croire que les Sénégalais sont amnésiques 2012 n'est pas loin les élections législatives il y a, il y a c'était il y a un an oui. donc nous tous nous nous souvenons de ce qui s'est passé en mars 2012 mais aussi de ce qui s'est passé en juillet les élections locales donc c'est pas la peine de revenir sur ces péripéties en tout cas comme je vous l'ai dit le président de la République aujourd'hui a pris l'option oui. de changer d'équipe très bien et l'option de changer d'équipe mm. ne veut pas dire que l'autre équipe a échoué aujourd'hui il veut encore continuer ce qu'il avait mis pour pour moi la personne la mieux indiquée aujourd'hui n'est rien d'autre que Mimi Touré parce que lui-même il a participé à l'élaboration parfaite du programme du président de la République donc je pense que ce serait pas par exemple un euh, difficile oui. pour qu'il puisse conduire l'équipe qui va gagner. L'équipe, euh, la teneur justement euh, de, de cette équipe euh, le, sera, sera connue euh, dans un peu moins d'une heure à présent. Nos reporters sont au niveau de la présidence de la République, mais nous poursuivons ce débat avec Abdoul Mbaw de l'APR, le député Abdoul Mbaw, et Manson Ndiaye du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Tout de suite, nous allons aborder la question des chantiers. Alors, selon vous, quels sont les chantiers prioritaire, euh, Mansour Ndiaye, pour le tout nouveau Premier ministre euh, Je suis désolé de vous le dire, Khalifa, mais dans ce pays, tout est prioritaire, présentement. Parce que rien ne marche. Donc les inondations sont là, euh, nous attendons, ils ont un programme décennal de 700 milliards, ils ont investi euh, plus de 60 milliards cette année, alors que les gens sont toujours dans l'eau. Et ce qui est plus dangereux, c'est que la pluie n'est pas encore donc tombée, la plus grande partie. que nous sommes à 130, 150 mm et Dakar est dans les eaux, l'intérieur du pays est dans les eaux. Donc c'est un vaste chantier qui attend donc euh, Mimi Touré. Euh, le problème de l'éducation est là, avec les réformes Donc ils veulent donc euh, amener les, les inscriptions de, de 25 000 à 75 000, paraît-il.

il faut qu'ils soient plus responsables. Qui sont euh, ces bailleurs c'est la Banque mondiale. Tout le monde sait que l'enseignement supérieur, euh, au-delà de la contribution de l'État, c'est financé par la Banque mondiale. La Banque mondiale a toujours fait pression sur WAD. Mais WAD avait compris que les dépenses effectuées au niveau de l'éducation, en réalité, n'est pas une dépense, mais c'est un investissement. Il faut une ressource, humaine de qualité. C'était Il s'est trouvé que le président Macky Sall, qui était un proche collaborateur, l'a dit, que c'est quelqu'un d'influençable. Il proche collaborateur de oui. il y a quelque temps. Vous savez qu'il était son, chef de cabinet à la primature. Il l'a suivi aussi également au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il a dit Que Macky c'est quelqu'un qu'on euh, il, lui est difficile de prendre des décisions. Je pense que ce pas un Euh, François Hollande a dit récemment, être chef d'État, c'est prendre des décisions, c'est décider. Et je déciderai autant qu'il faut. Mais ma conviction est qu'avec Macky Sall, ça, ça, ne passera pas. C'est moyen que Mimi et Abdoul c'est Macky Sall, c'est un problème de vision Khalifa. Et c'est oui. très clair à notre niveau. Alors, Abdoul Voilà, moi, juste pour dire que euh, c'est vrai que Mansour euh, a toujours sa fougue de jeunesse pour dire tout le temps nous allons faire face les étudiants sont en train de faire face il faut que les gens sortent dans la rue moi je pense qu'on a dépassé cette période là parce qu'aujourd'hui ils sont toujours hantés

sénégalais et je l'ai répété tout de suite. Mm. maintenant pour pas avec l'université. non pas avec l'université attends je dis que. les étudiants sont dans la rue. il a dit que les continue a dit. que c'était pas le plateau pour appeler euh, justement voilà. nous n'avons pas appelé à l'insurrection Khalifa. il a dit tout à pour faire face. je suis très clair dans ce que je dis Mansour il faut arrêter. de vouloir par exemple euh, euh, brouiller un peu les esprits moi je suis clair dans ce que je dis et je pense que c'est pas vous qui allez me distraire par rapport à ce que je dois dire maintenant par rapport à votre question vous avez demandé tout à l'heure les chantiers qui attendent le Premier ministre moi je pense que heureusement que Mansour a dit que les chantiers prioritaires tout, tout est prioritaire dans mmh. ce mm. pays-là c'est vrai tout est parce que pendant douze ans ils ont mis ce pays à genoux donc c'est normal que quand on vient que tout soit prioritaire <laughs> et depuis un an on est en train de travailler tout il a parlé du plan décennal par rapport aux inondations c'est vrai cette année Khalifa vous êtes un Sénégalais vous habitez Dakar Foire quand il avait plu il y a deux ans trois ans personne ne pouvait passer là-bas cette année il faut aller là vous ne verrez pas l'eau parce qu'il qui au niveau de Gounas à Guédiawaye peut-être Mansour ne va pas sur le terrain à Guédiawaye le bassin de rétention depuis cinq ans le bassin de rétention débordé pour entrer dans les eaux à l'instant où nous sommes il n'y a pas encore une population déplacée à Guédiawaye il a d'autres qui sont déplacés dans d'autres localités mmh. moi je suis allé sur le terrain j'ai vu ce qui a été fait maintenant par rapport au plan décennal c'est ça dire la vérité au Sénégalaises et aux Sénégalais dire que je suis là les inondations il faut les il faut un plan décennal par rapport à ce problème-là ça c'est vrai que c'est des chantiers non deux mandats trois en tout cas un peu plus je vous je, je vous dis que mm. le président de la République sait qu'il va pas rester ici éternellement il va venir faire ce que les Sénégalaises et les Sénégalais attendent de lui mm -hmm. il partira un autre va venir continuer parce que ce qu'il ne faut jamais oublier nos postes, nos responsabilités ne sont pas éternelles. Mmh. Moi, aujourd'hui, je suis député à l'Assemblée nationale. Il y a quelqu'un qui était avant moi député qui, demain, je serai remplacé. Donc ça, on ne perd pas ça euh, de vue. Et pour dire que, par rapport à l'éducation, mmh. il, ne faut, il faut arrêter, parce que j'entends souvent dire qu'on est en train de vouloir privatiser l'université. Je laisse à Mansour Ndiaye aujourd'hui de dire aux Sénégalaises et aux Sénégalais, avant le coût de l'inscription au troisième cycle c'était combien mais pour un enseignement de qualité mais il faut avoir des réformes et le président de la République quand il est venu il a mis sur pied une commission qui réfléchit sur les sur l'enseignement supérieur il y aura une commission qui va réfléchir globalement sur l'éducation hmm. euh, en général parce que tout est prioritaire dans ce pays-là mm -hmm. donc c'est ces chantiers-là qui attendent le premier, Madame le Premier ministre et on sait que elle est capable de tout faire pour mener à bien hmm. son gouvernement pour arriver à des résultats probants, bien que ce ne sera pas euh, de tout repos pour nos amis du Parti démocratique sénégalais, mm. mais quand même, euh, Madame le Premier ministre a obtenu des résultats mm. et aussi le président de la République a donné un signal fort par rapport à la bonne gouvernance et je pense que au les Sénégalaises et les Sénégalais nous jugeront. Ici, sur ce plateau, on est juste en train de débaucher des idées pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Mais au finish, c'est les Sénégalaises et les Sénégalais qui diront le dernier mot. Alors, incessamment, euh, nous aurons la liste de ce nouveau gouvernement dirigé par Aminata Touré, ancienne garde des Sceaux, ministre de la Justice et priorité au direct. Nos reporters sont niveau de la présidence de la République pour attendre justement le secrétaire général leur livrer la composition composition de cette nouvelle équipe. Et de, tout de suite, euh, nous avec la version Wolof euh, de ce débat. Euh, donc mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen euh, dalal ci plateau bi donc ni ko tàmbalee ak Abdoul Mbaye ak pardon Abdou Mbow c'est juste laaj la nan ngeen tertoo maanaam paluk jëwriñ ju njëkk ji di kii bi folle bi nu ngeen ko tertoo waaw xam nga waaw c'est vrai que wolof de fooli lay wax waaye mën ngaa wax tamit dindi. <laughs> dindi bu nekk li waaw xam nga wala dàq. comme <laughs> waaw comme dàq la olof tamit mën naa wax loolu. parce que maa ngi rafetlu invitation bi ñu invité fii ci sa plateau TFM. Hmm. di nuyu aussi ki nga xamante ni mooy Mansour Ndiaye bu parti démocratique sénégalais. ak di nuyu sénégalais rek sénégalais yi ñuy seetaan. ni ñu ko tertoo nag moom mooy tertu bu normal ci république. parce que ku ne xam na ne république moom. Euh, premier ministre fal ko ak dind ko moo ànd te loolu warul doon événement bu mag boo xamante ni war nañ ci nekk di euh, polémiquer loolu moo tax président de la république ba ñu ko falee le 2 le le 2 avril dafa woo euh, Abdou mbay tabb ko mu nekk premier ministre am boobu ba léegi des na def na fukki weer ak juróom-ñett ba le premier dimanche mu woo ko ne ko man kat la ma la dénkoon bëgg naa ne fii la war a yem parce que damay def ay changement pour hmm. continuer liggéey bi hmm, hmm. loolu nag dafa doon loo xamante ne parce que constitution Sénégal maanaam sart ndeyu réew mi moom moo wax ne président de la république moom am na moom moo am sañ sañ-sañu nommé ci fonction civile ak militaire. très bien donc pour yéen la. lu la ci vie wu république. très bien parce que moom. loolu moom la ko constitution bi moo am sañ-sañ bi def na ko li ñu ciy xaar rek moom mooy mu doon ko euh, boo xamante ni. jafe-jafe askan bi nga xamante ni moom la ñu nekk di jonkonteel depuis un an. Hmm. ñu continuer ci. alors Mansour Ndiaye yaa fi teewal parti démocratique sénégalais yaa ngi bokk ci comité directeur bi nekkoon nga également conseil technique au niveau de la primature jamonoy Souleymane Ndéné Ndiaye alors léegi yow nan ngeen euh, nan ngeen tertoo dogal bi. Khalifa maa ngi lay sant di la gërëm ci ni nga ma dalalee ci plateau bi pour ñu waxtaan ci actualité bi maa ngi nuyu donc sénégalais yi ñuy seetaan yëpp euh, Euh, génnuk euh, abdul mbay ci gouvernement bi du li ñu bett. nuyu ko nee na nga maa ngi nuyu suma xarit suma mag euh, Abdou Mbaw ñun génnuk Abdoul Mbaye ci gouvernement bi du lu ñu bett. Mm. parce que su ngeen fàttalikoo jamono yee ñu weesu ci weeru décembre ñun dugal nañ benn motion de censure mm. maanaam demandé ndaw askan wi nga xam ne ñoo nekk assemblée nationale. Mm. ñu ñu ñu tekki ndombal tànk Abdoul mbay ci bopp gouvernement bi. ndax jàppoon nañ ne mbir yi nga xam ne am na ak président Habré te moom mu ne Habré bu mu indee xaalis moom moo ko accueillir Euh, ci banque la nekkoon client moo ko recyclé euh, dina tax mën na dem ñu woo ko comme témoin ci procès bi donc na tekki ndoom ba tànkam ñun loolu lañ doon wut parce que bëgguñu woon vraiment le premier ministre du Sénégal dem ci ay procès ak yooyu alors qu'il est en plein exercice euh, de ses fonctions li ñu doon leeral sànq rek mooy leneen li aussi mooy toppee damay leeral rek pour dellu si si kàddu yi nga xam ni avocat Abrès boobu mu wax na ko si banquier wuti ñëpp xam nañ les chefs d' accusation contre oui. après mhm. mais euh, bërki Dembo Ndiaye gis nañ euh, ministre bi nga xam ne moo yor wàllu yoon ci Tchad ne ñoom dàquñu def euh, seen état donc ñëw pour laaj ndàmpaay wala pour abré delloo leen seen xaalis te loolu su amee rek dinañ woo Abdoul Mbaye pour laaj ko ñaata la abré indi woon fan la ko dugal ak compte yi fu mu ne mhm. te buñ fàttali nit ñi enquête yi ñu defoon sax dañ ne ay compte fictif la Abdoul mbay doon utiliser ak ay nit yu de pour dugal ci kii bi am na rapport yu génne loolu. li ñu dee ñun ñun leeruñu ah, waaw am na rapport yu ko génne enquête. ay hmm. magazine yu ko génne. Euh, li tax ma ne la bettuñu également mooy que Abdoul mbay bi ñu ko falee dafa def ay weer ñu changé gouvernement bi. tax nee nañ gouvernement bi ni muy doxee gaawul ne nañ gouvernement bi mënul régler problème askan wi donc il faut ñu changer ay ministre ñu daal di changer. Hmm. ñu demaat ba tey ñëpp di wax ne réew mi dafa makki. réew mi dafa tàggatéem ba demul dikkul chantier amul investissement amul ci réew mi xam nga lu ko waral c'est parce que ñu ngi def ay traque des biens mal acquis dañuy gis nit rek mu yor oto bu rafet wala kër gu rafet ñu ne ko foo ko jëlee daal di jël dugal ci kaso bi donc loolu lañu fi nekkee. ba pare boo xoolee ni ñu ni ñu organiser donc seen seen seen seen kii bi. Mhm. Euh, seen gouvernement bi doxalin bi moo baaxul ndax seen réforme yi ñu def ni impôt sur le revenu. impôt sur la société. Hmm. c' à 20 pour cent ici. Hmm. investisseurs yi dañuy préférer dem Ghana fa ñuy fayee 10 pour cent que fii looloo tax réew mi doxul. looloo tax Abdoul Mbaye mënul doxal donc du nitu Abdoul Mbaye ki sax mooy gêné rek mais booy xool problème mu gis-gis la. ak vision boo xam ne. président Macky Sall amu ko. alors Abdoul Mbaye euh, rafle ngeen euh, vision également mbiru abré bi ak. Euh, ak Abdoul Mbaye xam nga man Abdoul man ay laa la waxaat excusez-moi Abdoul Mbow voilà man damay bëgg xam nga bu dee waa PDS ñooy toog fii di wax ne amuñu vision ak dañoo mënut doxali man ay ree sax dama que ñoom yaakaar naa ne ñëpp war a wax ay waxu vision mën bu mu des ñoom parce que ñoom bu ñu mënoon duñ fi jógee le 29 mars maintenant par rapport ak Abdoul Mbaye bi muy wax euh, ak euh, abreg yooyu heureusement bi nga waxee ne avocat bi nee na wax na liñ koy toppee mais ay affaire motion de censure bañ koy déposé ñoom cinéma rek lañ doon def parce que toog nañ lu yàgg xam nga dañoo tàmmoon micro ak rajo ñu gëj a wax ci micro rajo ñu ne nañ def motion de censure comme ça bu ñu mayee assemblée ñu mën leen a wane télé ak yooyu ñu wax parce que kenn gisatu leen kenn déggatu leen loolu rek a taxoon ñu def cinéma déposition motion de censure waaye yaakaar naa ne suñu déggatee fu ñu waxee motion de censure sax ñu ko fekkee parce que ñoom je pense que ba ñu ñëwee wax nañ leen loo xamante ni nii yaakaar naa ne ba ñu juddoo ba tey mosuñu koo dégg hmm. maintenant par rapport ak euh, li nga xamante ni nii moom mooy traque des biens mal acquis wax na ci xam nga président boo gisee mu nommé Mimi dafay wane encore une fois de plus que bon gouvernance moom moom la jiital hmm. vision président de la république nekkatul lu ñuy waxtaane hmm. parce que dafa am un programme boo xamante ni dafa ñëw muy ñu tudde ko yoonu yokkute mu présenté ko sénégalais yi sénégalais yi wóolu ko fal ko te programme boobu daf ci am ay priorité yoo xamante nii mu dëkk li décliné ko devant les sénégalais sénégalais yi ñëw wax ko xam nga bu ñuy wax ne réew mi dafa makki loolu mooy réew mi neex na. parce que que euh, Abdoul Mbaye dafa dafa échoué. non Abdoul Mbaye échoué wul encore une fois de plus parce que xam nga bu fekkoon ne loolu rek la mën nañu wax ne chaque 2 mois parce que boo xoolee moyenne mën naa ne chaque 2 mois 3 mois sax Abdoulaye Wade doon na changé gouvernement mais dama ne kon Abdoulaye Wade dafa sa ligne mais dama ne li am ba des mooy. président de la république xam nga olof Ndiaye des fois nit ñi dañuy wax on change pas une équipe gagne mën ngaa gis équipe bu gagné tey nga changé ko mu gagné 7-0 ëllëg. Hmm. mën ngaa am équipe tey mu gagné 2-0 nga soppi ko su subaa mu gagné 7 parfois c'est équipe double waaw la hmm. moom laa la wax dama ne la Abdoul Mbaye ba mu fi nekkee léegi gouvernement am sénégalais sentir nañ parce que li muy wax manque de vision kon non dama ne euh, vision hmm. la vision bokku la gouvernement bi chef de l'état moom sa vision mu nit mu koy doxalal vision bi su demee ba benn moment mu ne dafay soppi nit kooku teg fa keneen pour ñu continuer vision bi la parce que liggéey bi ñu liggéey diggante euh, un an yi ba 18 mois yi hmm. mais loolu ci suñu comptabilité lay doon te sénégalais yi gis hmm. nañ ci yokkute boo xamante ni xam nañ ne. li nga xamante ni moo taxoon ñu fal Macky Sall ngi ci yoon wi. parce que am na yoo xam ne mën nañ ci teg ay. alors ñu ñu ngi ak euh, le député Abdoul Mbow bu APR également Mansour Ndiaye comité directeur parti démocratique sénégalais ñu wax leen rek ni euh, direct bi moom mooy priorité bi ci euh, plateau bi ndax suñu ndaw ñu ngi toog ci présidence de la République di xaar ñu biral liste bi nga xam ni moom mooy mbooleem ñi Aminata Touré tànn ngir ñu bokk ci gouvernement bu bees bi du ñàkk ba fileeg waxtu wala lu ko yées daañu Daouda Sow mu xamal ñu li fës foofu boobu ñu foyal waxtaan bi ak Mansour Ndiaye alors Mansour beneen point bi mooy euh, mbiru choix bi nga xam ne mooy tànneef bi dañu ne euh, dañu ko euh, dindi teg fi kii pour gérer mbiri politique ndax jongante yi ñu dëgmal yitteel palu gox gox yeex gox goxaat yi. man yaakaar naa ne le président Macky Sall comme le premier ministre Mimi Touré ñu sax tal politique Macky Sall dañu ko fal pour mu régle jafe-jafe askan wi. Hmm. Euh, mbiru élection maire Macky Sall mënu ci doon candidat te waru ci def campagne en aucune façon. loolu la yoon wax. loolu la yoon wax. Hmm. moom nag xam naa ne kuy jalgati yoon la sax. ah bon ah waaw parce que moom nekk na fi ministre de l'intérieur bu ngeen fàttewulee mu dem défoncer bureau de vote voter sans pièce d'identité à Fatick histoire boobu sénégalais yi dañ koy fàtte. moo tax man yenn yi bu koy def du ma du ma du ma bett ñun xam nañ ko ñun ak Macky ñun ñoo nekkoon Mansour ma nga génn fàtte sa calpe élève Abdoulaye Wade la boo boo ko fàttee te nga nekk ministre de l'intérieur yaay organiser élection yi nga dellu sa kër jëli ko ñëw def comme hmm. donc euh, jalgati bi moom mu ngi fi waaye jàpp naa ne xanaa élection locale yi dinañ respecter calendrier nañ ci jot nga ni waajal boobu moo tax ñu euh, mën na ne waaye li ma gën a jàpp mooy Macky Sall dafa sonn fi mu toll nii ndax nit ñi ñu ngi naan réew mi dafa makki euh, nit ñi ñu ngi naan réew mi dafa métti mhm. réew mi dafa tar koo mosul gis muy ñaan mooy tàllal loxo loolu mooy réalité bi mhm. donc euh, mu jàpp na léegi comme que Abdoul Mbaye moom comme premier ministre nit ñi jàpp nañ ne ku sedd la demul au contact des populations le rôle de fusible et de temps tax mu indi mimi yaakaar na it bu indee mimi xëy na réew mi dina mimi waaye ñun jàpp ñu ne réew mi dina mimi ndax ñoom à la place du travail ñoom dañu préférer nekk di traquer au lieu ñu liggéey pour régler donc jafe-jafe askan wi waaw xam nga <laughs> Mansour euh, wax na léegi réew mi dafa nar mimi en fait waaw non déggoo li ma wax xam nga comme ni ma waxee rek ñun hmm. nekk ñu di fo peut-être ñoom ñoo toll ci fo ak wax caaxaan ñun dañoo dénk réew ñu nekk di liggéey parce que léegi maa ngi dégg mu ne way xanaa Ablaye Wade euh, Macky Sall du campagne ci local yi gis nañ fi président bu doon campagne ci local fu mu dem ay xeer a ko fay génne yaakaar naa ne loolu ñun du fa àgg. mais boobu moom moo doon dem di campagne. fu mu dem ay xeer ko fay génne loolu yàggul loolu yàggul donc Mansour Ndiaye xam naa ne loolu moo nekk ci xel mi. <laughs> moo tax mu koy wax mais ñun foofu duñ fa yegg parce que yaakaar naa ne am nañ capacité pour demal. wutal suñu bopp doo naa par rapport ak euh, Euh, chantier yi ngay wax. Hmm. xalifa ñun xam nañ ne sénégalais yi dañoo am yaakaar bu mat ci Macky Sall ak gouvernement hmm. moo tax la président Macky Sall dafa jël askan wi teg ko ci kanam. jël leneen teg ko ci ginnaaw xam nga bu ñuy wax ne gouvernement politique ma ne man du ma dissocier maanaam du ma taqale politique ak économie parce que homme politique yi ñooy defar programme. dem ci sénégalais yeeg sénégalais yi tàllal leen programme bi ne leen nangam la ñu bëgg a doxale réew mi ñu fal ñooña te ci biir homme politique yooyu dañuy wax technocrate mais dama jàpp ne un homme politique des fois moo gën a complet sax le technocrate parce que homme politique bi des fois di nga gis un homme politique boo xam ne sur la santé boo ko waxee mu wax la ci sur l'éducation mu wax la ci sur euh, euh, euh, secteur yu bëri dañ la ci wax mm-hmm. donc kooku dafa am am njàng am ay compétence ba pare boole ci di def politique donc kooku am na formation bu parfaite boo xamante ni ça lui permettra boo ko joxee ay dossiers mu mën ko liggéey donc tey jii les hommes politiques c' de bons cadres yoo xamante ni. war nañu mën a conduire li nga xamante nii moom moo war a jëmee Sénégal ka am solo moom mooy le premier ministre Mimi Touré li nga xamante ni moom la askan wi di xaar ci moom te muy vision bu président de la République. Hmm. Euh, tànn. ñu àggale ko moo gën te loolu lañuy xaar ci ñoom te jàpp nañ ne dinañu ko fal parce que dinañu ko def. Hmm. parce que loolu moo leen ñor ci la ñuy dox suba ba ngoon jot. mais gouvernement politique moom. du loolu laa yaakaar parce que dama jàpp ne képp koo xamante ni président de la république à travers son premier ministre tànn la pour nga nekk ci gouvernement bi am nañ ci yow yaakaar boo xamante ni fa ñu lay xaar ci secteur bi war nga ci def loo xamante ni ëllëg dinañu wax ne gongo très ci ci wàllu boobu la ñuy la muy wàllu euh, chantier yi wax nañ ko sànq ci nasaraan alors yow lan nga jàpp ne moom moo gën a jàmp Mansour Ndiaye ci wàllu euh, chantier yi waaw man jàpp naa ne lépp dafa jàmp Khalifa lépp dafa jàmp ndax euh, Sénégal dafa reculer depuis 17 mois lépp dafa jàmp ndax euh, économie bi doxul baisse des recettes fiscales xalifa du ñun ñoo ko wax banque mondiale moo ko wax le ministre et de euh, de l' économie et des finances Ahmadou Kane le ministre de l' économie et des finances Ahmadou Kane confirmé ko baisse des recettes fiscales mm-hmm. premier trimestre 2013 commande publique baissée de 90 milliards mm-hmm. ñun créé wuñ loolu dafa nekk réalité la donc réew mi doxul investissement amu fi bu dee am na fi na ko Abdou Mbow wax à part inaugurer ay chantier Abdoulaye Wade ak di yeggale. c'est la continuité de l'État amu fi d'accord vous allez me dire ah. ça parce que toujours loolu la wax c'est la continuité de l'État mais quand même baax na ci hmm. ñoom comme que dañu xalaatoon wax sénégalais yi ne ñii mënuñu jëlee leen leen mais keroog keroog gërëm na keroog bi na Wade ci ci loolu mu sumboon moom mu àggali a a hmm. ko jël du dara mu def ko directeur def ko ministre conseiller def ko ministre de l'énergie def ko ministre de l'intérieur def ko premier ministre def ko président de l'assemblée nationale mac Sall a dit même que ne moom nu muy waxee Abdoulaye da ko ko jàngal Abdoulaye nee na ko booy wax dangay ngay siggi bul bese sa kii xam nga donc kooku du nga remercier ko ci inauguration mooy li gën a ndaw waaw euh, donc pour continuer ci chantier yi les inondations xalifa mbënd mi sonal na sénégalais yi <laughs> mbënd mi sonal na banlieue bi ñoom defar nañ benn programme bu ñu ne 700 milliards la pour 10 ans mm-hmm. waaye ma ne ñi daal vraiment amuñu gis-gis amuñu yéene ci askan wi yërëmuñ askan wi parce que ñi nga xam ne dañu bu buñ ne leen toog leen fukki at ngeen muñ déet waaye du loo xamante ñu wut 700 milliards pour defar ko duñ mën a sottal ci benn bés ma mais nga góorgóorlu inondation fi ngeen ko bàyyi fi ngeen ko fekk bàyyi ko mais nga góorgóorlu mm-hmm. nga góorgóorlu ci ñaari at ñett wàññi au moins souffrance bi jafe-jafe bi. Hmm. parce que xalifa. ñii ak seen 60 milliards ma xalifa xalifa laisse-moi terminer. xam nga léegi ci français. Hmm. ma ma pour ma tontu ko parce que foofu nga daggee débat français bi. waay moom day dem ci terrain bi te man xëy na xaw terrain bi. Hmm. ma di ko xamal ne ko man dama nekkoon kuy xelal premier ministre. ci wàllu environnement ak di saytu suuf. jiitewu woon inondation yi mais dama bokkoon ci comité bi moom xëy na sax xamul loolu ak lu ñu koy defee euh, di la waxal ne la ñoom seen cent millions yu ñuy def ren defaruñ bas tension bu bees defar créé wuñ la ak artiel station de pompe fa fekk sax courant day nañ dem ci ba bi ku gis na président Macky Sall bu muy dox di wër banlieue bi mais demul fan mi am demul Guédiawaye demul yëmbal du feneen du problème agenda quand même c'est trop sérieux quand même mm. Khalifa loolu c'est des amants yu yu léger du affaire agenda c'est parce que xamoon na li ko fa doon xaar askan wi dañ ne ñoom dañu sonn ci digg bi dañu sonn ci mensonge yi loolu lañu wax dañu ne li ñuy diggee nañ koy def boo teniree ay promesse na nga fexe nga respecté ko. boo jëlee ay engagement na nga fexe nga honoré ko loolu la askan wi di wax. ok donc Abdou dina la bàyyi nga tontu te inondation yi laa wax. waaw mais très mais il faut mu tontu aussi. balaa ci wàllu chantier yi ma ba léegi. Hmm. wàllu xëyu ndaw mu ngi fi ku nekk gis na les diplômés sans emploi hmm. ñuy dox di wax. xëy amul ba ba nguur Macky Sall taxawee ba léegi te dafa digoon 500000 emplois. jéego yi am na si wàllu fonction publique bi. am na ay jéego non quand même 5000 emplois. ma ak téeméer. Hmm. xale yi ñëw déposé lu wax ji mooy Khalifa 5000 yooyu tànn nañ leen bu ñu ngi ENA di def seen formation 5000 yi ñu ngi ci eaux et forêt yi def seen formation gisoon nga leen building noonu ñuy def grève de la faim 5000 yi ñu ngi ci yeneen écoles yi donc ay 1000 2000 lañ cay tànn donc loolu dañuy nax ndaw ñi man yaakaar naa ne téem cinq cinq cent mille emplois yi ñuy dikk sénégalais du noonu lañ koy defee leneen di mooy euh, y a aussi le problème donc au niveau de la justice. Mmh. le problème au niveau de la justice ak syndicat bi bi grève nga xam ne dem nañ sax ba ne vraiment Mimi Touré nañ ko fi jëlee loolu chantier boo xamante ne si mu ngi leen di xaar. wàllu éducation enseignement supérieur bi ñu bëgg a privatiser. ne léegi booy def licence dangay ngay inscrire xaw ma vingt cinq mille. licence 2 licence 3 master doctorat ba ba mille xalifa koo xamante ne si loo lekk da la të dund gi cher na xaalis amul ci réew mi nga xëyee a xëy rek ne léegi pour nga jàng boo amee bac da fay mais l'enseignement c'est un droit nit ñi dañu war a jàng man moom ak le président Macky Sall dañu jaar ci ay école jàng ba fii l'État a investi sur réew mu mel ni Sénégal njàng il faut nga jàppale ko il faut nga financer ci te mu moytu bailleurs yi nga xam ne ñu mel ni banque mondiale dañuy def pression ci kawam boo nekkee njiitu réew da ngay am taxawaay bu dëgër mën a jël yenn décision dinaay dégg François Hollande mën a jiita réew. jël ay décision la. parce que bu ñuy jaaxaa jaaxle ci yow la ñuy yow la ñuy yaakaar ci yow la ñuy wékku waaye bu fekkente ne yow décision doo ko gaaw a jël wala mënoo ko jël wala il faut ñu ñu ñu ñaax la ci. comme ni ko Sitor Ndour di waxee nee na Macky nit la koo xamante ne si euh, jël dogal da koo jafe. il faut am ñu nekk ci wetam di ko jàppale ak yooyu bu fekkente ne noonu la demee te ñun xam nañ ñi nekk ci wetam ces journalistes là ces gens de la société civile mm, qui mm. sont des politiques encagoulés nga xam ne pouvoir rek leen intéressé ñu nekk ko di ko digal loo mooy li ñuy wax ne xam naa laago du wees waaye bu ñu yëgoon bàyyi fi Abdoulaye Wade ok Massour waaw léegi mm, Abdou moi je pense que PDS li leen fi jëlee ba léegi dañ ko fàtte maanaam xeeb nit wax nit ak suffisance maanaam jàpp ne ñoom rek ñoo man xam nga président Macky Sall. c' est le président de tous les sénégalais. te nit bu nekkee président de la république da nga war a jox cër. waay parce que Mansour xam nga ni muy waxee du ñàkk a wekk njiitu réew la. di wax naan way nii ngay waxee ak naa nga xam nga loolu peut-être li mu nekk xale. moom moo tax muy waxee noonu mais les hommes matures. am na loo xamante ni waxagu lu ñàkk tey ah non si si parce que quand il prend quand prend quand prend oui Abdoulaye Wade moo koy wax nii ngay waxee da nga yëkkati sa bopp. loolu dara nekkul si mais dafa am loo xam loo xam ne. Mansour booy wax du ma la dagg loo mënti wax. sànq ba léegi dama lay. s'il vous plaît. Hmm, bàyyi ko mu àggali bàyyi ko mu àggali s'il te plaît. man waxuma la waxu sos xam nga sama rakk nga mais waxu ma la waxu sos quand même il faut être respectueux hmm. de moi et des Sénégalais je pense que c'est mieux maintenant pour revenir un peu au débat hmm. moi je pense que pour parler un peu des euh, hmm. parce que Khalifa man ku ma xam xam ne duma wax lu ma gëmul duma wax lu ma parce que je parle devant les Sénégalais ci débat lañ nekk amul benn baat bu ma yëkkati teg ko ci kaw nit mu nekk toog wala mu dem ginnaaw parce que man du ma jëw hmm. noonu la ma yàlla bindee noonu laa mel à plus forte raison nag Mansour Ndiaye parce qu'il me connaît très bien man xam naa ko bu baax am na loo xamante ni du ma ci dugg maintenant pour revenir un peu au chantier dont vous parlez oui. je pense qu'il a parlé wax na léegi ci affaire inondation yi mm. moi je pense que ñëpp a war a wax affaire inondation ba mu ba mu des waa parti démocratique Sénégal lu tax ñi koy dund lu tax ñoom hmm. tey jii yaakaar naa ne Sénégal bu tollee fii ci affaire inondation hmm. wax lu ñu deful devant les sénégalais moo indi situation bi tey ba pare situation bi pendant 18 mois ñun ñu am ay jéego yu am solo yuñ ci def yow ndakaaru nga dëkk waa ndakaaru ñi ngi may seetaan waa Guédiawaye ak Pikine ñi ngi may seetaan damay commencé ci fii nga xamante ni sorewul mooy foire ay at ci ginnaaw su tawee kenn du fa mën a jaar boo fa jaaree léegi ndox mi bu tawee ay 200 millimètres taw na ko fi. Mansour d'accord nga ndox mi. am na am na ay jéego parce que ña dëkk moom am na waa parti démocratique sénégalais xam nga foofu ñoom ñëpp ñoo fa dëkke foire ñoo ko dagoon hmm. dëkk fa ñoom ndox ma di leen fanoon tey jii ñoom ñëpp fa lañ dëkk mais boo fa demee ndox ma na leen daan sonale sonelu leen noonu au niveau de la banlieue géejawaay c'est vrai que conseiller premier ministre la woon mais loolu yàgg na dafa jeex mais je parle man ci ren ak li ñu fi def hmm. soo demee géejawaay ba de rétention ba nekk Médina Gounass da daan génn li may wax je parle des faits. Mhm. da daan génn di dem ci biir euh, nu ñu koy wax. kër yi kër yi. Mhm. tey jii boo fa demee ka fa nekk nekk ca station de pompage ba moom ci boppam moo wax sénégalais yi dégg ne depuis cinq ans li ñu am ren. en euh, quelques heures ndox mi dem musuñu ko am. mais Mansour nee day de euh, affaire de jékki-jékki panne du am. carburant déggu li ma may wax nii devant les sénégalais. man ay fee laa lay wax. mais pompage yi pompage yi amul carburant. ni muy doxee waaw pompage loolu ah. ne. Hmm. tey jii amul benn station de pompage tey jii bu la neexee nga génn. def yëpp nga dem di dox normal la preuve géejawaay tey jii. amul benn population bu ñu déplacé. Mansour dégg nga. li ma wax ni c' est très clair je le dis devant les Sénégalais. Mm. maintenant au niveau des chantiers ñuy wax ne ay inauguré ay chantier Ablaye Wade mais il faut pas muy oublier aussi que yàlla dafa juste autoroute bi mag yi moo ko tàmbali woon première pierre ba. tey jii yàlla moo juste mooy moo ko inauguré parce que yàlla moom. nekkalu fi kenn ñëpp la fi nekkal. Hmm. ak beaucoup de choses yoo xamante ni moi je pense que comme ni ma la ko waxee dafa nekk ci programme boo xamante ni ñu koy doxal. tey jii yaakaar naa ne tollaguñu sax fu ñuy def bilan mais yegg si nañ foo xamante ni. lu nekk mën nañ cee teg suñu loxo. Hmm. ne ñun def nañ lii problème mu enseignement supérieur bi. wax na ci sànq dama ci rapidement. Hmm. mi ngi wax ne l' enseignement c' un droit ñun ñëpp xam nañ ko mais dama ne enseignement supérieur il faut nit ñi jàpp ne. bu ñu wax nee di jaxase xelu nit naan dañ koy privatiser kenn privatiser ko troisième cycle gënoon naa cher li ñu proposé leen moom mii xam na ko parce que nekkoon na université tey jii bu ñu waxee ne nii la ñu bëgg a def ci enseignement supérieur c'est pour am enseignement de qualité parce que Sénégal ab dëkk mënut a développer te amuñu enseignement bu baax moo tax président de la République bu mu ñëwee mu teg ak kuréel buy saytu enseignement supérieur ñu ne nañ ci xalaat xool ay proposition waxtaan ci ak étudiants yi waxtaan ci ak euh, syndicats yi waxtaan ci ak acteur yi nekk ci enseignement supérieur yëpp finalement ñu jël ay décision ne lii la ñu mën a doxal maintenant nag ay décision bu ñu ko jëlee il faut mu am ñoo xamante ni dinañ xoñalal mais aussi pour defar dëkk boo xamante nii comme ni mu ko waxee tout est prioritaire parce que ni ñu bàyyee réew mi je pense que bu ñu ñëwoon def na ñoom rek mhm. fii ak at defe naa ne sénégalais yëpp dinañ tuxu cinq mille cinq cent emplois yi ñuy wax mhm. wax na sànq ne dañoo recruter avant mais dama il faut ñuy wax sénégalais yi booy recruter da ngay recruter ñoo xam dañoo def ay concours. loolu c'est pas le PDS non dégg dégg non lu leer la. Hmm. dama ne jeunes yooyu def concours du ñu ay burkinabé du ñu ay malien. c'est des jeunes sénégalais. bokk ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo déposé seen i donc c'est pas de l'arrogance c'est quelque chose de très clair le ministre de la fonction publique l'a expliqué très clairement. Mm. ñooñu ñuy recruter muy alkaati police douane ak ñeneen. alors yaa ngi waaj a jeexal yaa ngi waaj a jeexal sa chrono donc Mansour bu fekkente ni amoo looy préciser rek en une minute. pour ñu avancer si beneen préciser Khalifa. parce que posture bi ma Abdoul Mbow bëgg a jox bëgg ma mettre en mal que man xale laa damay demee fukk damay ku ma xam-xam ne je suis un homme très responsable et très respectueux de mes vis-à-vis je n'ai tenir ma fi benn propos déplacé. dama ne dama gis Macky sàll mu ne lu ne Ablaye Wade defal na ko ko en 95 alors que mu jiite woon CIS la ko Ablaye Wade wax ne ko il se peut que ñu dugg ci gouvernement d'union nationale vous êtes jeune mais dama la bëgg def ministre mais nag booy wax del siggi dëgëral sa baat. parce que dafa période kersa. waaw donc ki nga xam ne dafa ànd ak yow Macky moo ko wax nee na mosu ko demandé dara mais lu ne defal na ko ko donc Macky moom ak Abdoulaye bu buñ ciy wax fii ba suba du ñu fi jóg comme li ñuy wax euh, ginnaaw yàlla moo ko créé moo ko créé. waaw lu tey nga óolu woon Abdoulaye Wade te óolu woon Macky mi nga ni moom moo ko jàngal. xam nga xam nga xam nga ah, kii xalifa mm-hmm. entre euh, acquérir des connaissances à l'école ak les pratiquer sur le terrain dafa am différence bu rëy rëy rëy diggante bu rëy ci ne. Mm-hmm. Macky ku xool jaar-jaaram di nga xam ne c'est un bon agent exécutant suñu définiree politique rek jox ko ko ñeme na terrain bi dina dem exécuter ko moo tax taxoon góorgóorlu woon na ci chantier Abdoulaye Wade am na am na yoonu yokkute am na programme. waaw non yoonu yokkute sénégalais yoo ko tuddee yoonu yàqute yoonu yokkute c'est un simple slogan ah creux j'ai l'habitude de le dire. Hmm. Khalifa kenn du gérer réew ak ay slogan ak ay discours ak ay idées kenn on ne les mange pas ça nañu dem sur le terrain ñu matérialiser. Hmm. vision yi nga xam ne moom la wax ne am nañ ko te diggoon ko sénégalais yi xam nga nag wax ba falu neex na de wax ba falu. Hmm. yomb na waaye nag exercice su pouvoir moom leneen la ñi nag vraiment bi ñu bi ñu jotee nguur gi ba léegi euh, askan wi ci lëndam lañ nekk askan wi ci xiif la ñu nekk. askan wi ci jafe-jafe la ñu nekk parce que plan tàkkul bi moo tàkkul xale yi amuñu liggéey comme lépp du ma wax sànq plan tàkkul bi moo tàkkul xam nga xalifa oui muy la presse comme ñoom mhm. je pense que dañuy trompé wu d' adversaire mhm. le PDS dañ leen fay jëlee parce que li ñu liggéey doyul mais la presse mooy seen adversaire yéen dam ne waaw ñiy wax ne plan tàkkal tàkkul rek mhm. peut-être une certaine presse la du ñëpp mais dama ne ñuy wax loolu yëpp ko wax waaw dama ne dama ne waaw mais xalifa ku nekk quartier bi nga dëkk ñi ñuy seetaan ku nekk ba moytulee léegi sa télé ni kamaj xalifa bi ñuy dem élection locale waaw bi ñuy dem élection présidentielle yéen ñëpp d' accord oon ngeen ne courant bi stabilisé woon na bi ñu dem. ah veille d'élection mais loolu c'est jamais convaincant. non non non non non déglu ma rek plan Dakkal du Ablaye Wade moo réfléchir wala Karim Wade des acteurs yu nekk ci secteur de l'énergie. ñoom bi ñu ñëwee jël nañu baax def ko ñoo toog réfléchir concevoir ko consensus la woon. Hmm. vraiment. autour des acteurs. Hmm. le plan tàkkal joxe woon na ay résultats am te ñoom li ñuy def kat sorewul ak tàkkal bu dee am nañ leneen nañ ñu ko wax maa ngi dégg ñuy wax benn programme mix énergétique un programme boo xam ne ñoom maîtriser wuñ ko. xalifa man am naa xam-xam jëmale ci énergie renouvelable. mix énergétique euh, les modèles ce sont les espagnols en Europe ay transfert de compétence ak yooyu lañu yaakaar mais mix énergie dama ne ñoom sax maîtriser wuñ ko ñoom ñu ñuy wax ne ce sont les modèles man recevoir naa ay espagnol dans mon bureau à l'époque recevoir naa ay italien ñuy ñëw di ñu proposer. ces programmes kon Abdou Mbow si programme boobu di ngeen soxla Mansour Ndiaye amuñu solution. pour énergie bi amuñu solution mm. pour inondation bi amuñu solution pour l'emploi des jeunes c'est ça la réalité nañu am courage yu jàkkaarloo ak sénégalais yi wax leen ko waaw lu ngeen fii def kon ah, léegi léegi li ñu dëg li ñu dëgmal muy élection locale yi loolu moo waral ñu ne ñu ñu ñu fal ñuy euh, Touré parce que moom politique la te ki fi nekkoon du politique waaw xam nga man euh, sénégalais rek ñooñu seetaan ñooñu jugé mm. sànq ba léegi Mansour ba mu commencé ba tey du wax benn fee du wax benn benn chiffre day wax rek politique ah, defuñu fi dara defuñu fi dara non defuñu fi dara munuñu dara du ñu dem duñu moi je parle pas de ça man du ma wax li may wax lépp xalifa dama wax loo xam ne mën nañ ko vérifier dama wax ko sénégalais di ma dégg mhm. moi je pense que Euh, sur le plan des inondations wax naa la li nga xamante ni def nañ ko ci. ba pare mu am plan décennal loolu mooy programme mooy vision. taf yëngal ñun. du ñu def loolu. Mhm. yoruñu président aussi boo xamante ni day ñëw ne maa wax lii suba waxuma lii déedéet encore une fois de plus vision la boo xamante ni euh, dafa leer nañ ci suñu bopp. Mhm. leer ci bopp président leer ci bopp premier ministre ak gouvernement bi nga xamante ni. Mhm. ñoom ñooy conduire la politique du chef de l'État. loolu c'est très clair. mooy sur le plan de l'enseignement sur le plan de l'agriculture sur le plan lépp loo xamante ne nii comme ni nga koy wax sànq sur le plan tàkkal moom ci boppam nee na veillu élection yi parce que dañu bàyyi ba élection yi ñëw ñu daal dem pour yaakaar ne dañ stabiliser pour loolu ni sénégalais yi naan doon nañ ko bu yàgg moo tax bu ñu ñëwee élection dañ leen fee jëlee sans sourciller hmm. parce que xam nañ ne ñii bu loo xam ne mënuñu ko lijjanti pendant 12 ans oui. en 6 mois waruñu ko mën a lijjanti et nous tous nous sommes témoins que plan dañu dem ponk def ay ponction dans énormément de sociétés aujourd'hui mi ngi wax ne ay waxu mix énergétique yooyu moi je pense que bu fekkee ne moom bëgg naa xam exactement le programme sur l'énergie dafay dem laaj exactement lan lañ ci def. comme nee na am na si am njàng mën na leen sax dimbali mën na leen dimbali xam nga mën nga def consultance. non déggoo ma la xam nga hmm. moom nee na xelam am na ci na ci. je pense que peut-être léegi la ci xelam am na xelam wala. peut-être dañoo xeeboon peut-être ab euh, expertise hmm. mais je pense que comme am na ci njàng am na ci il n'a qu'à c'est un fonctionnaire de l'État hmm. il n'a qu'à aller mettre se mettre à la disposition de l'État du ministère pour wax leen ne nangam laa xalaat mais li ma la mën a xamal daal mooy hmm. président de la République à travers son ministère am nañ ci lu leer loo xamante ni ñi ngi ci te sénégalais yi ñi ngi gis résultat yi parce que xuy kamat na mu meloon ñëpp xam nañ ne loolu wàññeeku la. très bien alors euh, jërëjëf euh, Abdoul euh, Abdoul Mbow di député parti APR bu Macky Sall ni ki noonu tamit Mansour Ndiaye bi nga xam ne moom moo bokk ci comité directeur bu parti démocratique sénégalais actualité bi moom mooy tànn tànneefu jëwriñ yi jëwriñ ju njëkk ji ba tey mu ngi ci waaye ba nëgën ni suñu ndaw ya nekk ca palais de la république ñu ngi xaarandi secrétaire général bu présidence génn daal di liir li nga xam ne moom mooy liste bi ñi nga xam ni moom la. kii di euh, euh, mam euh, Mimi Touré di Aminata Touré tànn nekkoon ministre de la justice ministre de la justice actuellement premier ministre donc moom mooy ñaareelu ministre soxna ci Sénégal ba mu sosoo ba nëgër ni di ñaareelu premier ministre également bu gouvernement bu Macky sàll bi mu sosoo ba nëgër ni léegi suñu dernier point bi ñuy soobu avant xëy na ñuy tàggoo fileeg waa waa présidence di joxe euh, euh, liste bi nga xam ne moom mooy liste ñii euh, ñi moom mooy kon léegi ñu delluwaat au palais donc léegi li ñuy wax moom mooy xool ak Mansour Ndiaye li ni nga xamante ne moom ngay xaare composition gouvernement bi ñu mal ndax da ngay xaar xëy na Macky Sall indi ay ay nitam ci jóge si partem wala da ngay xaar mu dee technocrate wala da ngay xaar aussi mu sedd waa coalition bi parce que déggoon nañ coow yu bari aussi à à l'époque ba mu xawoon a yëngal Macky 2012. waaw xam question boobu yaakaar na ne Abdou Mbow moo ci gën a mën a indi ay tontu euh, ñoom ñooy defar seen gouvernement. mais yow loo loo njort euh, loo njort. mais man li ma lay wax mooy li ma intéressé. Mm-hmm. mooy que ñu tànn ay doomu Sénégal yoo xamante ne si am nañ xarañ gi jub nañ mën nañ liggéey ñu doxal. li nga si déggagul ndax rafet na sa njor euh, maa ngi xaar daal parce que déggaguma dara mënu ma la wax. consultation yi déggagoo consultation yi par rapport oui oui ay tur la wax diw moo occupé ministère bi ba léegi. Mm-hmm. donc dañuy xaar le gouvernement. mais yaa ngi dégg CV yi quand même mais daal li ma lay mën a xamal mooy. xalifa mm-hmm. waxoon naa la ko ci biir waxtaan bi. Mm-hmm. jàpp ma ne demu Abdoul Mbaye ak ñëwu Mimi Touré wala composition bi parce que du problème mu nit c'est un problème de système et de vision. Mm. parce que kat politique bi du Mimi moo koy définir président Macky Sall moo koy définir. Mm-hmm. te ñun jàpp nañ ne euh, gis-gis bi dafa mel ni leerul dafa mel ni ñoom fi ñu jëm xamuñu ko ndax kat ñun dañu une option claire. ci sunu éducation ñu investir ci am une option claire ci agriculture ñu investir ci am une option claire d'une politique infrastructurelle ñu investir ci mais ñi munoo wax ne vraiment li mooy seen seen choix politique. waaye yéen li leen li di waxal mooy li leen gars di waxal mooy très bien mais à quel prix loolu moo indi tey coowul traque des biens mal acquis. waaw mais mais mais def nañ. xam nga tey dañu ne ouvrage yi cher mais à quel prix. xam nga am na loo xamante ne tamit. Mhm. Euh, Sénégalais yi defuñu ci attention. Mhm. mais wax xaw na wàññi xam nga dañu wax les surfacturations au niveau de l'ANOCI et tout ça. mais bi ñuy def l'extension de la VDN. nit ñi gis ne kilomètre ci seen projet bi kilomètre de route bi moo gën a cher ñun li ñu doon def. très bien alors balaa ñuy ñëw excuse-moi te ne doon wax ne kilomètre de route. Mhm. Euh,

modifié vu le décret numéro 2012 1165 du 29 octobre 2012 portant nomination du ministre directeur de cabinet du président de la République. Vu le décret 2012 1223 du 5 novembre 2012 portant répartition des services de l'État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationale et des sociétés à participation publique entre la présidence, la République, la primature des ministères, modifié par le décret numéro 2013 3 janvier 2013. Vu le décret numéro 2013-96 janvier 2013 portant nomination du ministre secrétaire général de la présidence de la République, vu le décret numéro 2013-1218 du 1er septembre 2013 portant nomination du Premier ministre. Décret. Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Morwan, ministre, directeur de cabinet du président de la République Article 2. Le ministre, secrétaire général de la présidence la République, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel. Fait à Dakar le premier er septembre 2013. Décret numéro 2013-1220 portant nomination du ministre directeur de cabinet du président de la République. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 44, vu le décret numéro 2007-909 du juillet relatif à l'organisation et au fonctionnement de la présidence de la République modifié, vu le décret numéro

expert en organisation et méthode, et nommé ministre, directeur de cabinet du président de la République. Article 2. Le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel. Fait à Dakar le 1er septembre 2013. Je vous remercie. nous reviendrons pour la suite. Allô Allô Donc, euh, lecture euh, faite, nous savons, nous connaissons à l'heure actuelle euh, que Morgom euh, euh, quitte la présidence. Il a été remplacé par Abdul Aziz Tal, qui a été à l'époque directeur général de la l'ONAS. Il est directeur de cabinet du président de la République et puis le reste de la composition du gouvernement, précisément, ce sera probablement dans l'heure. Alors, Dissa Prera, est-ce que vous avez euh, d'autres précisions à nous apporter Merci Khalifa. Pas maintenant, pas maintenant, on n'a pas encore d'autres précisions. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on savait que la déclaration allait se faire en, en, en 2G. Il ouais. fallait d'abord euh, Euh, faire, une, faire, faire, donner la liste de, de, de, de, des gens qui sont nommés à la présidence de la République, les mm. ministres conseils et chefs de cabinet, après revenir pour donner la liste du gouvernement. Donc nous, avons, nous, nous vous avons pris de court, hein, probablement. Euh, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus Voilà, je disais que, euh, euh, euh je disais que